dañuy wax ni championnat la rek championnat moom mooy demee nii daal donc euh, day am ay défaite euh, dina am ay nul dina am ay victoire aussi. c'est vrai que ni ñu démarré woon baaxoon na trop mais aussi du ma ni bon na ba léegi quoi parce que jongante ci biir mbokk la woon tey donc euh, fallait que mu xaw a compliqué tout, te ki ñu doon tasanteel dafa nekk ci baaw tableau bi donc looloo tax day ñëw ak beneen motivation quoi donc looloo tax match bi demee nii mu demee donc ça se comprend mais je félicite euh, maa ngi di féliciter ñom wa amitié di encourager aussi samay joueurs di len wax ni championnat bi jeexagul li dess euh, bëri na trop trop trop et lepp luy imperfection rek len ci tirer ay jangat pour mën préparer maintenant suñu yenen match kuy dem championnat rek lepp dang koy parce que da ngay nekk ci moment fort mais da ngay nekk aussi ci moment faible donc euh, période bi ñu nekk ni mën ko jappé moment faible d'une part parce que c'est vrai ay défaite la ñam mais sur le plan jeu aussi du ma ni moment faible la parce que so xolé produit un ben jeu bu correct seulement occasion nombre de ñu amone loolu lañu concrétiser wul alors que ci ben détail bal arrêté waji duggal ko donc match yu mel nii noonu lay démé à chaque fois donc looloo tax tay ñu jël défaite bi mais l'équipe euh, équipe mérité wul ben yoon quand même. match mom xawna xaw ak équipe Thiès la won ASC Thiès équipe bax la ñu ngi si classement bu baax quatrième xam 5e doganté ci biir mbok la won du won yomb ñun gagné wu ñu woon ba léegi. on avait dit tey amul briefing on a fait réunion briefing on a pas fait briefing dañu bay boy rek ñene dañu leen doon leen ji ah Thiès la Thiès ngeen deuk fulaak fayda mooy gagné match bi ñu wane fula premier temps bi 0-0 deuxième temps ñu am na occasion yu bëri yu raté deuxième temps bi après a mais da nga ko raté donc syndrome boobu moo ñu jàpp ba léegi attaquant yi ba léegi dañuy raté seen défense kay marqué le but Ousseynou Gueye moom dugal but bi. on a eu 5 matchs <laughs> on a perdu nul yàlla def ñu ñu continuer ñu gagné waat gagné bi sa kanam. il bi foo liggéey Bissau mi si kanam il faut travailler en travaillant qu'on peut gagner les matchs c'est pas du du après liggéey bi rek la mi ngi maintenant c'est aux joueurs moo di gëm seen bopp si kaw attaquant yi gëm seen